affaire PSS ni mu demee dama toog rek gouverneur woolu ma gouverneur du Sénégal tubaab la ma ñëw mu jox ma ñaari tex bu arab bu arab ak bu français ma jàng ko te wax ma lu ci sa xalaat ma jàng ñaar yépp ma ni ko mekki xanaa suñu constitution la mu ni ma waaw constitution bi ngeen nara am mu ngoog ni ma loo ci xam ma ni ko ñaar de bu ñu taxawul daañu perdre mu ni ma ñaan ma ni ko sëriñ ak chef de canton maa ko ko wax mu ni ma yow gis nga affaire ne eskil est-ce qu'il ne serait pas bon nga informer sëriñ si mënu ko mukk ma ko defee yàq loo xam ni kenn du xam na mu toll mu ni ma kon nooy def ma ni ko damay jël position bu ma jëlee position ba mu tàng ba tàng daañu dem wuti alliance Serigne sëriñ mu jeex tàkk mu ni ma ay risque ngi ci ma ni ko moo tax ma di ko jël ma ni ko lu amul risque baaxul waaw yàlla xam na ko loolu dajeeg intellectuel yëpp dem Cotonou def fa seen réunion ni dañuy laaj indépendance totale bi ñuy laata ñëw fekk ma def sama déclaration rejeté lañ fa wax yëpp wax ni duñu def mukk indépendance bi nekk ci loxo néegar yi kese kese duñu ko def parce que xaru la ñëw ba mu ñëwee gis déclaration bi jóge ko sunu moom sengoor mu bind ma lettre ni ma Serigne Babacar si moo la inspiré position bi nga jël parce que lanu arrêté ci Cotonou buñ ko doxalee nun ñëpp dinañu al ko loolu la wax moom Senghor leetar bu rafet la ma ca bind Mamadou Dia ñëw def déclaration wax ni d'accordul ci sama démarche kon nag mouvement bi ma def nañu ko daldi di dissoudre nga defee ni mer naa ci mukk dama daal xam fu yëf yi mujj ndax ñaari philosophie yu bokkul la te ñoo séq réew mi kon nag ci éclatement rek lay mujj yàlla xam na ko moo tax Mamadou Dia mujj na ko wax ci kanamu Xaaji Ibrahima Niass ni ma loonu critiquer rek d'accord naa ci da fekk dama ko mënula wax rek te wax na dëgg ba ñu génnee Xaaji Ibrahima Niass ni ma kii ku honnête la bu onetul woon du waxe nii yàlla xam na ko lettre ba ma ca Senghor bind lettre bu ne rafeti mosuma koo gis lettre ba sax dafa am ku ma ko àbb ku ñuy wax Foccart te nekkoon ak général de Gaulle ca Paris ma jël lettre ba jox ko Élisabeth juuf pour mu yóbbul ko ko booba Élisabeth ak njëkk ambassade ba booba Abdou Diouf dencagu ko booba mi ngi am xale bu tuuti bu jigéen bu bu ko yàlla jox ma ne ko takk naa sagar ci tànkam ni mag ñi daan wax ma ni ko li ma metti mooy bu màggee dafay fekk ma màggat yàlla xam na ko pour wax la ni nun jógewuñu ci pax ki nu yar lu ne la xam sëñ Babacar Si nuy barkeelu ci moom rek boobu façon lool la moo tax ñu def PSS ne a comme dissoudre nañu mouvement bi nañu def parti politique pour wane li nu sañ ñun itam moo tax waaye bu fekkoon ni wut pouvoir rek la bu ñu sàccee élection ya kon nu taal réew mi waaye ba ñu sàccee élection ya nun ñëpp doon sant yàlla moo wax na ko yàlla xam na ko ba bër bërki démb maa ngi ci waxtaan ak Serigne Moustapha mii ma ne ko seetal booba bu fekkoon ne noo gañe téye réew mi ba léegi ni ñuy saaga niti pouvoir yi lan nuy saaga ma ne ko ndax na fekk du nu mën a gérer réew mi duñ ko man koo xam ne doxal daayira dafa la te mën nga gérer réew dama leen koy laaj ma ni ko sëñ si am na juróom-ñaari at di réorganiser daayiratul kiram mu te tëj te mënoo ëpp barke mënoo ëpp leer ma ko Sénégal yi noonu la ñu mel ils naturellement indisciplinés loolu la yàlla dogal te Blaise Diagne ba léegi jàmm amul mu wax la ko te Blaise Diagne ba léegi te ku ci ne booy tàmbali yiw ngay tàmbalee ku ci ne booy tàmbali yiw ngay tàmbalee waaye lépp Blaise waxoon sëñ Babacar Si mu ni ko yaa ngi mel ni danga xaw jeex mu ni ko sëriñ damay def ba duma jeex parce que dama am ñeenti problème problème bu jëkk bi mooy ñi ma ñi ma xaritool defe nañ ni noose pouvoir bi rekk moo ci des ñi ma bañ itam defe ni sosal ma rek moo may daaneel tubaab yi nekk ci diggante bi di exploité ñii ak ñii ba noppi te jabawu tubaab la am dama am komplexam duma la ko nëbb yow ni ko ñeenti problème yi ñoo ma jeexloo nii seetal loolu ah waaye xamuloo ni mag ñeenu yar mag ñeenu yar te depuis Blaise ak léegi looloo nekk ci Sénégal ba mu fi jógee ngalandu la fi bàyyi ngalandu itam li mu bëggoon a wone mooy wone ni sénégalais la te bu ko wonee ba mu jeex rek jikko wolof ñëw te bu jikko wolof ñëwee du fi def dara maa la ko wax mu jóge fi Lamine Gueye ñëw ak si di doomu nit ku nekk un bourgeois nit ñi ku nekk ak sa bakkan mi ko kay dundalal nu sunu bakkan mu toog fi li fi nekkoon ak si néew nit ñi séddoo ko mu jël westam teg dem yoonam bi muy dellu si nag mu indaale sengoor sengoor ñëw ñu naan kii kaw asamaan la jóge li mu jàng tubaab sax jàng ko ñu di ko yóbbu ci penc yeeg fu ne mu naan kamaraat nit ñiy daanu aal naan déggal nee na kamaraat yëfi caaxaan yooyu yu xamul waaw yu kenn xamul te du noonu du noonu du noonu Senghor boo ko waxee dëgg mu nangu ko yàlla xam na ko loolu moom qualité la maa ko xam ci moom